dalee sama kaw ñu bëre ma daan ka. bu taxawee. taxawee ma fekk ka fa duma ka daan ka. amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la tiitukaay ci làmm de ci àdduna ñun dara safuñu si. Fass ngay dégg ñëw Thiaroye sur nag gaay amul siisu yëpp xam nañ ko xam ko ak waa Fass Ali maa lay nuyu maa lay fay ci loo nekk sant yàlla bu wér amateur yëpp dañ laa xamoon nga nekk supporteru écurie Fass lan moo waral Ali ak Reug mais Ali ak rëg-rëg moom euh, boo ko boo ma ci laajee ma ci sawar a wax parce que rëg-rëg nekkul koo xamante ne ku nekk gan la ci man quoi rëg-rëg sama jarbaat la mën naa wax sax sama doom la sama fils la donc euh, li ma booleeg moom caaro yi la parce que caaro yi laay liggéeye bon yàlla def na daal ma bëggal ko sama bopp man maa ko bëggal sama bopp man maa ko tànnal sama bopp man maa ko def sama mbaru bopp waaw looloo ma moom. kon léegi Aly Sall na léegi léegi ca nekkatul Aly bu Fass waaye Aly bu Caaroy. non Aly Fass Aly Caaroy Aly Reug Reug daal moo gën a wóor fi mu toll nii waaw. Aly bu Reug Reug. xanaa Fass léegi dafa doxatul moo tax Fass. non du loolu du loolu Fass yàgg naa ànd ak ñoom Fass euh, ca jamonoy Moustapha Gueye la woon mais bon xam nga jamono day dox et yàlla bu defee nga nekk ak nit koo xam ne daf la jox cër. loo dugg mu dugal ci loxoom loo nekk mu mu fekk la ci yow itam bu amee bis bu tol nii faaw nga ñëw jàppale ko rek. làmb ji noo gisee moo moo Gris de noo gisee. waaw combat la de combat bu extraordinaire la combat bu am euh, ampleur la bon ay eh, ñaanal rek rek mu am ndam. sant gaay ñu ngi sant bu baax di la bëggee Lamine suñu xarit. lu wànq di dox yow looy waaw ñun suñu lépp caaray la ñun suñu lépp caaray la tey lu ñu mel rek yàlla ak ñii ñoo tax ay Baye Mandiaye Ndour xam nga. pa père àll ak affaire yooyu ñun nu ñu mel ak ñoom la pa àll ak affaire yooyu tey rek suñu rakk la seex nañ jàmm am na bés boo xamante ne maanaam ndamu ndamu banlieue bi la banlieue bee ko soxla caaray lamsaar ñëpp ñoo ko soxla te yàlla dogal na su ma waay la bon ren ñoo àndoon tukki doon waxtaan ci yoon bi doon nañ gisee xam nga di ko ñaanal ndam ñun moom ku ñu seegal jàmm rek soo amee bés ñu ñëw ak xol ñaanal la ndam. adversaire bi muy bëreel ak adversaire yi mu doon bëreel est-ce moom li ci des ndam lañ koy ñaanal ak jàmm cat jiitu ko loolu rek na ñëpp na moo mën moo ëpp doole moo gën a diis mais bu Reug futeekoo nañ xam lim nar xam nga pare moo gën te pare na li des dañ koy ñaanal ndam yàlla suturaal ko. suuf si nga tax nii pour lan la. damaa jógee entraînement contact laa jógee rek ñëw comme mënu ma bañ a ñëw. waajal seen juillet. waaw non pare nañ waaj instant rek moo xewle nañ ñaanal rek ba pare lee ñëwagul. lee lee lee diis na. seexuma ak moom wax te du ma wax ak moom rek yàlla na ko yàlla may ndam. kii nag euh, sa adversaire Double Moteur doo wax ci moom. sequma moom wax. Madou. seq ak moom. jëf kese. Papa Ndiaye rek ngi noonu. def zone noire am. ànd ak seex. zone noire def. mu war a bëree samedi bii. yéen koy laaj ci commentaire yi samedi bii lay bëree 15 juin. arène nationale. pay per ak Luc Nicolaï Omar Kane alias Reug Reug moo ngoog moom Omar Kane am na lu mi suul pap am na lu mi suul ña ngay suy xorom ña ngay suy rek ña ngay sabal rek ñu ngi sabal rek ñu ngi sotti rek ay waay xorom si xorom si mbaa dugg ci bëtu liñ seex kaay gaynde gi bëgg naa waaw siyaar nañ la Lamina ah. ci loo nekk sant yàlla bu baax jàkkaarloo ak ñu ah. ragal la masuñu kaa ragal waaw pare ngeen wala pare woon yàgg na pare nga ñuy laaj <laughs> waaw nga leen a ñëwee dimanche samedi. comme ni ñu doon ñëwe rek ah ñaan yàlla yàlla may ñu ndam xam nga di woo ñëpp Sénégal di wax na ñëpp nañ si jàpp waaw di di soxla nañ seeni ñaan trop di wax rek ak Gris xam nga ay xale lañ amaana ñoom fi leen nit ñi teg sax waneeguñ fi lool ko quoi mais ñu bëre ko si ngor fulla fayda jom xam nga li la wax yàlla may ñu ndam nag. waaw léegi xoolal ma lii liñ ma def daw. waaw si pour lan. ah. maa duma teree wax samedi xorom. xorom si pour mu saf. du ma tere wax. pour mu saf pour mu saf waaw. kaay xorom si pour lan non xorom si ma benn maam moo ñu ko jox rek bi ñëw fi xam nga rek ñun moom dañoo dëggal moo tax lu ñu jox rek dañ koy def te naa la xam ne combat bii sama combat la man. sa xel dal na ci sama combat la man billaahi combat bi sama combat la. dëgg boo bëggee dëgg dëgg dëgg combat bi sama combat la man après wax lu tax combat bi moo wax sama combat wax. bi naal tekkil te combat bi sama bakkan laa si teg boo bëggee dëgg dëgg. lu waral lool lu waral combat bi daal mu laaj lu bëri daal lu si laxasu lu bëri après nag boo ma seet naa wax lu tax loolu. lan laa lay seet si. heure boo bëggee rek bu combat jeexee rek bu ma daanee giri bu soobee suñu borom nga ñëw. loolu mooy loolu. ñoo ñaan yàlla nag mu may ñu ndam yàlla bi nga xam ne moom moom moom ndam ñu ngi koy ñaan yàlla nag mu may ñu ndam parce que def nañ li waroon def lépp yàlla moom moom ndam moo xam ni may nit ndam yàlla nañu ko may si barke Seydina Mohamed te Girido maa ngi koy muy wax benn wax naan man ndongo daara laa Girido mën naa gën a nekk ndongo daara man déggoo ma man si daara laa yaroo may nekk xale bu ndaw la ma sama papa yóbbu daara mais xam nga rek kenn du xam lépp wax lépp moo da bu bëleeg mi wax naan ndongo daara ndongo daara man Cambérène laa yaroo xale bu ndaw la xale bu ndaw laa woon may nekk Cambérène waa Cambérène xam nañ ma parce que ñoom ñu ngi mën a naa man rek muy wax noonu rek daa baax yaakaar ne ñun du ñu ay ndongo daara ñëpp ay ndongo daara ma xam mais ndongo bi lan la ci ak bëre ndongo daara bi la du cadre ay ndongo daara moo tax moo tax man naru ma si woon a wax parce que bu nee làmb jaratul ñoo waxi ndongo daara parce que boo déggee imam Mali li mu wax wees ala al ulama waytari bi mu tamee na nañ nañ laaj borom xam-xam yi te bañ a roy suñu ñi nga xam ne lii yaa may dégg man a giri doo ñoo yam war gars yi war nañ laaj mais ñun war ñoo roy si ñun ba bëggee dégg dëgg mu ne ma ñëwee parce que si làmb lañ nekk moo tax parce que làmb yàlla yàlla liwu ko moo tax buggu ko moo tax ma warul nekk fi di sonal ñu naan ndongo daara ndongo daara. xeex wala na ngeen di bëre. Gris 2 bu sunu borom bu rëppee dama koy dóor mu daanu. day wax nii si. bu neexee borom mii may ndam billahi bu rëppee ma dóor ko mu daanu. kon asibur ba sam. incha allah. nga nuru ko tiit. ah man est ce que passé wu ma loolu ci làmb. 99 euh, laa bàyyi bëre nekk manager. tey ci ñi gën a ancien ci ménagères yi ci làmb ci laa bokk bëccëg bu nekk guddi gu nekk am naa ko ci làmb kon amatuma lu may prouver ci làmb xanaa kay indi sama poulain ñaax ko wax ko li ma ko war a wax xelal ko li ma ko war a xelal mu ñëw bëree ñaan yàlla may ko ndam. ñëpp ni bu bëggee bu bëggee daan girido foog mu jaar ci flanc waaw xam nga loolu waxi amateur la làmb dina jeexe fu ko kenn foogewul ndax bëre dóor lañu wax. dóor mu daanu ma naam. dóor mu daanu mën naam ci combat nga mbéj naam. leen dañ koo gis moom. mën naam. dañ koo gis moom buy song du ja du waa xam nga combat bu nekk ak la ca war a xew. en tout cas lii à suivre la. Ah. ndaanaa a ngi nii loo xamante ni kenn du ko miimal dara. la muy nag. waa ki muy bëreel champion la parce que day xale. toll ak jamono li mu war a def yëpp mu def ko ku mel noonu nag sooy bëreeg moom aussi danañ la wax liñ la war a wax ñaax la. nga def li nga war a def waaye li ma la mën a wax daal euh, champion ngi nii boo xamante ni kenn du ko miimal dara. a suivre ba sax. à suivre. seen doom seen rak seen jarbaat te am combat mu nekk combat bu am solo ci carrière am digganteem ak Gris 2 fan ngeen toll ci waajtaay bi. waaw comme comme d'habitude rek ñu ngi ci ñu ngi ci phase finale phase ci jeexatal yi dugg na ya dañuy ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabil aalamiin ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla may nu dam ci réglage rek lañ nekk nii quoi comme open press la booy bi il faut que ñu bàyyi ko mu bajantu su paree ñu dugg moom ci ruq wax ak moom jëm samedi daal. ci dernier réglage yi ngeen toll ku toll ci dernier réglage di moytuloo mbër mi di nga ko bëriloo nangam wala nga ne ko moytul nangam. adversaire naa ne amul adversaire bi soo ko doon moytuloo boo ko doon moytuloo ci adversaire bi lan koy moytuloo. ndax neex amul danger quoi man gisuma ci benn danger. irritant amul amul xam nga mu ñëw fukki sénégal ñëw bëre lu ko neex mais côté Gris 2 moom amul danger du ci xeex bi du ci bëre bi. non xam naa waa Fass bu baax man yàgg naa biir Fass. kon kon revanche la. non du revanche sax ndax kii sama doom la xam nga kon daanaka du revanche ñaari xale la yu màggante dajal ci biir làmb muy Gris 2 muy Gris 2 muy Reug Reug kon dañuy ñaan yàlla rek. tam li ñëw caare gis yaa gisal sa bopp. mais ñu bari ni côté doole Gris 2 ci ëpp doole. non mënu ko doole nag mën na ko ëpp fële mais mënu ko ëpp doole ndax ñun xam nañ ni ñu entraîné quoi ñun nag duñu cuune ci làmb nag. est-ce que di ngeen ko digal mu taxaw xeex ak Gris bu Gris bu Gris xeexee mën naa la waajal ñu duma ko bu bëree ñu daal man xaadim maa la ko loolu. lan mooy essence su Gris 2 ci bi. a daal. essence. waaw loolu mooy loolu mooy làmb. lay moytuloo rek. rek li te loolu ay magam nag duñ ko bàyyi ay papa lañ ñu ngi ko topp jusqu'au bout duñ ko bàyyi. kon mën nañu xaar Xarim Ndiaye samedi bu ñëw. non dimanche di samedi di nga samedi di nga gis lu rëy. un an ngi nii ñu teg 6 mois ñëwuma laam combat bi moom it. mais kay nag waa sarax. non ñun ñoo xam seen sarax. muy sarax waa Fass. pour fàtte ni béy mbéy kay papa kana ko mu daanu maam booy bi ma booy papa booy bi. yow foo jaar ak Tafa Gueye. déggu ma foo jaar ak daan na ma benn daan soppala daan ah, kon kay looy waxati ci waa Fass. seen sarax mooy ñu teel a ñëw rek bi daan ko ñu ñibbi loolu nga yor champion d' Afrique Gris 2 bëre trois champion d' Afrique fii daanandoo ñëpp tey noonu. ñu xoolee nga xamante mooy pare Pakala. daan Auguste. Pakala nu mu ah? ngi woon làmb ja. waaw ñu ngi woon làmb ja seetaan na ko. par par verdict par avertissement la ko jëlee mais na ngeen waajee rek rek mi nga xamante moom it champion d'Afrique la war a tase ki nga xamante doon daan ay champion d'Afrique waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi uh-huh. ñun ni daan waajale papaam papaam ni ko mag ñi daan waajale uh-huh. tey noonu la mag ñi waajale seen doom ji muy rek rek uh-huh. rawatina ñun ñi di ay papaam di bi daal ñu ngi ñaan dugg ci bismillahi rahman génn ci alhamdulillahi rahman ak ndam lu set ci barke suñu Fall la waa ji la waaw loolu la xam nga rek nekk la am di préparer rek xam nga nekk tamit ma lay baal wax ak wér quoi waaw. baal ma sa combat boobu nga jógee léeg la ko xañ xam nga ko. xam naa ko bu a baax tamit excès de confiance la yóbbuwoon xam nga naagu ak war a daanu quoi war a daanu mais ku xam mbir tamit xam na loolu du bëreem mais damay sant yàlla wér a na yi nekk si kanam mu daax ak waa te ñu ngi préparé bu baax lii may wax wàccaale lii bor la koy fay billahi wallahi dañ koy fay yow ma la waxee nga nga gëm allah. nañ jëm ci benn combat bu am sen ci seen carrière mu war a nekk noo gisee rek. waaw rëy tey ñu nga gisee comme ni nga daan rek dëgg yàlla kontaan nan ku ko xam ne liggéey na pare na ñu ka ñaanal yàlla may ka ndam ndam lu sedd guy te ku neex a jàppale la nit ku baax la boo xoolee ñun tey bu nawee bés da si sonn trop mais rëg bésam bi amul lu ma jarul billaahi te rëg yàlla na ko may ndam yàlla na ko yàlla may ndam rëg yàlla na ko yàlla may jàmm mu adversaire bi mu bëre waaw gir de xam nañ ko ñi rek mais gir de tamit ñu koy wax ne kay ñi muy bëreel non daan Gris 2 jaaxal ko waaw pour man ndax rëg boo xoolee rëg li nekk ci moom nekko ci Gris 2 bu dee wàllu bëri ci rëg la ëppee te incha allahu rabbi samedi yàggatul incha allahu rabbi may may wax waa Caaray nañ jóg waa Caaray géew jëpp jàppale rëg xam nga xam ne doomu Caaray la te combat bi Caaray da kaa soxla Caaray da kaa soxla rëg ndam lañ koy ñaan ndam ndam lañ koy laaj ndam lañ mënoon bëgg ndax boo xoolee temps yi Caaray neexul temps yi defet bari na fi mais rëg lan bëgg mo ñu ndam ndam incha allahu rabbi ndam lañ soxla amul leen ndam lañ bëgg te mooy am mais Lamine yow ma lay gërëm bu baax nit baax nga sama waay nga yàlla na yàlla defal jàmm waaw. waaw maa lay fay. Tapha Gueye numéro 2. Tapha Gueye ah mu ngi ci ruqam maa ngi sama ruq di waaj rek. espagnol dara ba xaar ngay bëri. waaw dara ba xaar laay bëreel. bu jàppee sa garab sax mën na laa waaw ndaanaan la nag mais nag mais nag ñun moom ñu ngi koy pare si lépp parce que ñun ay xale lañ yàlla moo dem nag ma war a bëre moom damay ñaan yàlla borom bi may ma ndam te ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax ñu ngi koy waaj saa su ne. samedi loo ngeen indi. samedi ndam rek incha allah ndam rek Reug Reug borom bi dafay defal ndam parce que liggéey na ko quoi affaire boo ñaqee rek da ngay jëriñ te ñaq na waaw ndax lu mu. xam ci adversaire. non adversaire am champion la mais man pour man mënul nekk champion ci kanamu Reug rek ndaanaan la nag ndaanaan la yàlla defal na ko lool mais ba léegi mënul nekk ndaanaan ci kanamu Reug Reug. ci mbir mi ngay. maa lay wax leen waa Caaroy képp ñoo ngi sa ginnaaw Caaroy jàmm ak Lamsaan ñëpp a ngi sa ginnaaw laa bu nit gën a teg sa bakkan bi Gris 2 du dërëm mbëri caare na ñëw jàppale ay xaarim njaay bu mag rek lañ fi gis loolu du yoon ñëw la ngeen jàppale Reug Reug doomu caare la na ñëpp génn ñëw jàpp si affaire amul siisu affaire bi caare géej la bu lal yow nga bàyyi bëre yow <laughs> bàyyi bëre temps <laughs> yi maa ngi si entraînement yu métti nga xam ne bàyyi da ngaa dof <laughs> ma laa ah su ñëwee tamit dañ koy sant yàlla rek dañ koy seere rek ndax fii moom lu ne am na fi. da nga wula a bëreeg ñi ngi say morom. ah. da nga nanguwul a bëreeg say morom. non non du loolu sax man bëre moom fi bàyyi bëre mooy suma métier heure bu ma xëyee damay entraîné pour bëre mais am na combat yoo xamante ne tamit mara naan bu la taxee naan pëlit bu robee ne nga rus daal. rëgg-rëgg Gris 2. non lamb la lamb la rëgg-rëgg Gris 2 combat la combat la boo xamante ne rëgg-rëgg gis naa ni fonk na ko quoi fonk na ko trop am na fu mu ko teg. ci Gris 2. ah. lu ma koy moytuloo si Gris 2 non mu yokk respect bi na ko gën a rëg-rëg bu tegee affaire si yoon man aw ma tiit aw ma tiit ci moom ndax ndaanaan la boo xamante ne ñu ñaar dañuy ànd dañuy ànd di entraîner xam na ay qualité yu bëri mais man bu tegee combat bi si yoon respecté ko no aw ma lu may tiit si moom li ma koy moytuloo mooy mu bañ a xeeb Gris 2 daal noonu la demee. amaatu ko combat. non amagu ma ñu ngi may wax adversaire mais taxawagul ba léegi. lan lay bi. bon Zago moo fi nekkoon benn émission. dina man du ma ko jël yóbbu lañ ko avance bi nee na bëréwut ak man daf maa ragal kay ndax buy dëkk ñu dul ñu ay moroomam kay daf maa ragal moo na ma jël rek boobaa la may xam yàlla nañu yàlla may ndam yàlla may ndam Reug Reug waaw mais Reug Reug tamit ponkal la ñaari poids lourd la Reug Reug yàlla na ko yàlla may ndam rek bilaay ok bëgg naa la bëgg naa la ba borom Gambi borom borom borom Lutte TV Gambi Gambie am na fa lu bari sax. amoo fa soxna. non non amoo fa soxna de. liggéey rek moo la fa yóbbu. waaw liggéey moom fa yóbbu woon. au ñu ma fekkoon. muy Cheikh Diouf ak Kémo ak Seeku. yee ak Sam ak sama mag Ami Diop ak Laay jëkkëram ak doomam yi yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm ak Yaama Ba. waaw lamb la lamb bu neex la ñoom ñaar ñëpp lamb da leen soxla xam nga mais ñun tey dañuy bàyyi suñu lépp ñëw pour ku ngay rëg-rëg tey yàlla defal ko ndam quoi ndax yow da nga demoon Gambie est-ce que xam nga ne Siteu bàyyi na bëre. Siteu si laa ko déggee de. maa la ko wax tey. léegi MMA lay def. Siteu c'est le phénomène. na bëre du bàq na. non du bëre Siteu mooy lamb Siteu bu bàyyi lamb lamb yàqu barke sëñ Fallou. taxawee sama kaw ñu bëre ma daan ka. bu taxawee. taxawee ma fekk ka fa duma ka daan ka. amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la tiitukaay ci làmm de ci àdduna ñun dara safuñu